ba tey monsieur le ministre économie nag yow laa jëm dikkati nga maa ngi courant laa waxoon bii yoon léegi nag Sonatel lay laaj li ci xew danga koo xamul on nous impose des des applications yoo xam ne soxlawuñu ko da ngay gis ñu ne Divigo 150 par jour luy Divigo ñu wëlbatiku ne Wat cent 150 par jour ñu wëlbatiku ne Camet Line 100 100 francs par jour. wëlbatiku ne close dem cent francs par jour muy cent francs yu ñu suturé ci Sénégalais yi te doy wuñ ko dara nit kat bala nga koy fayu dalay laaj léegi ndax xaw ma ndax loolu yëg nga ko wala yëguloo ko et pour le DER y a des gens qui disent que tous les jeunes ont été financés bu ngeen xoolee seen portable di ngeen ko ci gis application yi di qui disent que jot nañu ñan ñoo jot fan la ñu jotee parce que d'après une émission à travers la télé le DG Sarr a dit que joxe nañ DER mais ñi ñu ko jox au lieu que ñu jënd ko matériel liggéey dañ koo fab def ko ci seeni poos dugg ci gaal yi gaal yi nag mooy problème mu Sénégal c'est la cause de la famine dégg naa sax ku joxe exemple naan jàngalekat bu bàyyi dugg ci gaal mais jàngalekat bi am 200000 am location 150000 jariñu la sa avoir moo yées li nga war a am nooy def ba doo doo wuti leneen lu ko tane sonn nañ nag vraiment emplois des jeunes yàgg naa koo wax maa ngi koy waxaat nit ñi sonn nañu. résultat bourse familiale bëgg na ñoo xam ren ñaata la xanaa nag war naa wàññiku nag famille bi war naa dellu gannaaw donc euh, maa ngi leen di nuyu di leen wax ne les hommes passent les institutions res l'état est une continuité ku ku jabar yi doon bor yi doon soxla yi donc kee fi nekkoon nekkatu fi amul sens dañ fay nekkoon baaxuñu léegi jëlee nañ fi yéen ñi baax nañ def leen lu nit ñi gis ba pare bay wax ku tooy kooku nga xam ne amul benn programme Ablaye Wade programme naan ndox mu manqué mi Ablaye Wade la Ablaye Wade lu yoonam ci ndox Ablaye Wade bi mu génnee réew mi léegi ça fait combien d'années nañ fexe nit ñi naan Serigne Mbaye Thiam a ko wax nañ fexe nit ñi naan waaye Ablaye Wade tax lu Ablaye Wade def la gouvernement Ablaye Wade Ablaye Wade danoo bon ngeen ba jëlinu fi teg fi doomam ngir yàlla wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a régler les problèmes des sénégalais mais war ñoo wiire nag ci Ablaye Wade Ablaye Wade nañ bàyyi Ablaye Wade ndeysaan mag la il ne mérite pas wax ni monsieur le ministre man de dama laa rus waaye il faut que nu waxanteeg yow kat réew mi nag sonn nanu de coono moo tax nit ñi dugg ci gaal yi ku am li nga bëgg fa nga jëm doo dem xam naa sax lu ngeen nag wax dëgg yàlla góorgóorlu ngeen waaye nag ngeen gën a góor góorgóorlu ndax yéen fi digge woon nag emploi yu dul jeex waaye digge fi denrée de première nécessité da ngeen koy wàññi yaakaar loolu nit ñi ba nit ñi xiif ba ŋaang ba ŋàppatiku gisuñu dara xale yeey dem boo bu ëllëgee si biir màggat ñay dem mag mag ñee ciy topp ndax ku sag njaboot dem nag di nga ci topp de nan waxante dëgg danoo sonn président maa ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd waaye maa ngi koy ñaanal le président son excellence Ablaye Wade 95 ans yàlla na dund 120 ans sans ordonnance yooyu nga dund 120 ans sans ordonnance ñun ñun ñëpp it nag ñu dund 120 ans ordonnance te yàlla def jàmm ci réew mi jàllu jéeri yow oot mii yaa nar a tojaat réew yow waxal ci lii application yuy imposé te ñun doyewuñ ko dara bis bu nekk ñu di la ko dagg te amoo fenn foo ko jaay seeta sa téléphone boo ko seetee di ko gis maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. toog leen toog leen toog leen toog leen toog leen ton temps toog leen waaw toog leen toog leen toog leen toog leen toog leen toog leen ay c'est allez